dafa am solo. ndax ca lañ ma nettalee moom lañ wax ñoom dañoo juum ci seen wax. ndax lenn di sa jur di soxla suñ fa leer loolu. Eh, li ñu wax koy def yaakaar naa wax jooju mënta jeexati ci ñoom. waaye la ma ci amal solo. mooy liggéey bi fa mu tàmbalee. leer loolu la mooy mën soo fay moo ñëw fii ci wax ba mu dikkee ñu waxtaan ci xalaat bi yàlla def na ci sama ci man la ñu ko génne. Mm-hmm. ko ba ma ko waxee na ma ko nettali mu ne ma sama mbirum bopp sama projet boppam. Mm-hmm. aywa sama doxal dinaa ko yëgal président bu ma demee dinaa ci ko topp ba yàlla def lu mu ba mu lijjanti ko ba ñu war a tàmbali liggéey bi mm-hmm. ñu war a tàmbali liggéey fekkuma ci Tuuba moo tax ñoom yéen ñuy wax. ngir boo ko boo booy défendre boo bëggee défendre bi itam. Mhm. da ngay am information yu leer. Mhm. wala nga topp waxi ka ngay waxal ba xam ni mu wax lu mu doon. ba ñu tàmbali liggéey suñu tas war a xam ni ñuy wax sax yàlla def na maa ko fayoo ci tur suñu. Mhm. maa ko moom mi laa ci yónnoon faa. maa ko yónnoon fekk mu fi Ndakaar loo fekk. man soo wax ma ko. ànd ak Moustapha Diakhaté ñi tey moom la am. fekkee Cheikh Mouhamadou Mountakha nekk njëriñam dañ dikkee siyaare sëñ bi yendu fa jóge fa ñëw te xeer kon loolu sikki sàkk moom ko amu ci lu la may wax te bëggoon koo laaj weesu lu gàtt loon mooy quartier yi dem ci Touba ak yéen quartier la mm. ak nga xam ne moo ko toxoon jóg muy jumaa ji li ko ndax bokk na ci njëkk juleen ba ca des it ñenn ñi tam dañ koo dégg ne dama ne dama koy woo téléphone du ma jël demeewul noonu mosoo ko mu ñàkk ma jël waaye daa nanguutal leeral liggéey bi ci quartier yi ñu jëm. ak nam dem weesu loolu rek nation la xam la ci des jéem ko xam néew na ci dëkk bi ne jugewul ci sama xalaat wala bu jugewul ci sama xalaat tamit maa ko ànd ak ñoom lépp te du toog ci tey di wax ndax loolu moo fi bàyyi du lu may ndamoo itam mm-hmm. na liggéey suñu tubaab loolu moo fi bàyyi mm-hmm. ki ma fi tegit loo tax mu tegul kon loolu lu lu li mm-hmm. waaye amu ci kenn koo xam ne mastaaf ne naa fi nit intervention ci entreprise bu liggéey ci biir tubaab mosuma ko def tam mën na ngeen topp yëpp ba mu jeex loolee tam dama cay bañ mooy xam ne lu jëm si ci dëkk bi waroon a def ne ndax sañ naa ko. Mm-hmm. ndax ñu ngi koy defal taalibe Sëriñ Tuubaa mm-hmm. waaye bañ lu yàq seen digg waaye lu ko lu ko gàllankoor moo tax mosuma ko def ko yëngal dama ci dama ci soxlaa xam mooy na liggéey bi tegu ci bi ñuy wax. Mm-hmm. ña liggéey xaw ma leen sëñ bi xamu leen. wala bu daan xamee xam nga mosuñu fee ñëw leeral ñu ko. hôpital bi Modou Lo bu Fousseyni bi yàlla def na bu ngeen delloo soo CRD fàttali ngeen fa ma ko daa wax naa ko yow. bañ bañ koy tàmbali dem naa ko waaye mu xamatuma ci dara. 30 mhm. bi ñuy wax. 2013 laa ci tàmbali wax ak président ba moom ci boppam sax fu ma néew daana ma ci toog di wax ne pour 30 suñ bés bi. Mhm. xam itteel gi ma itteel. Mhm. ba ñi tax xeeroo dem naa boobaa léegi xamatuma ci dara. ba ñuy ba entreprise bi tàmbali liggéey bi yooyu fii ma sax. fu mu toll ñëwaatuñ ci man loolu du ma ko lijjanti. kon ñoom. buñ jaawalee ay mbir yu bokkul wala ñu bëggee a défendre rek ba tax ñu bëgg a yàq loo xam ne yàq xamuñ lu mu man loolu du sama cër jéem ma ko lijjanti loolu yëfi état la loolu mel koy jéem a jàngal buñ ko gën xam ko xam ndax état buy def appel d'offre entreprise sa ba gañe gañe ko loolu ci jéemuñu xam nañ du suñ jëf waaye nag Touba lu ñu fi def bu doonu tëri itam wala ay làmp ba ci làmp yi ci mujj làmp yi ci mujj ba ba dikkee ci sëriñ bi sëriñ bi ci mën mi leen boole la. Mhm. maa ko ànd ñoom la ma ca war a xalaat ma boole ak Abdou Lahad Ka ñu dem euh, liggéey ci maanaam ma xoolaat ya ma ca mën a dugalaat ya ma ca mën ma soppi ko. Mhm. delluwaat ko ci sëriñ bi nag wan ko lépp benn mhm. ba siñ bi xool ni nii baax na ñu door ko loolu moom liggéey yëpp noonu la doxee.